saraax la ñuy def ci xew xew làmb tey fekk fa Balla gay 2 le lion de Guédiawaye ma sunu làmb xëy indiwaat am na taalam fasal ay kàddu ci moom la mu xëy xamle mooy Balla Gaye 2 intraitable redoutable impitoyable Balla Gaye 2 le killer du dimanche Balla Gaye 2 mooy mbër mi kenn dootu nattable mën a bëre Balla Gaye 2 mooy mbër mi kenn mënta mucc ci moom Balla Gaye 2 mooy mbër mi kenn mënta tiital kenn mënu koo naawal Balla gay 2 mooy borom dimanche yi kum mbokk lëng la yóbbu indépendance bu ko mbër yi amee c'est grâce à Balla Gaye 2 Yaxya moo fi nekkoon ub làmb ji terrorise mbër yi kuñ Yaxya moom le lion de Guédiawaye Balla Gaye moo dindi mit boobee le avril 2012 journal ba xamle foofe mooy Balla Gaye tàmm na loolee yàgg na ci li ni mel ñetti data ngi nii saa yoo ko tuddee faaw nga tudd Balla Gaye ak jaloore yam ca def le mars 2010 le ak le avril moomi jaloore mën nañ ne mu ngi commencé le mars 2010 mi ñépp jàppoon ne xarañ loola faaw mu xàll yoonam le 21 mars 2017 Demba Diop la ko Balla Gaye 2 freiné jox ko defetam bu njëkk ba mu ca jógee le 31 juillet 2011 la def Mohamed Ndao Tyson lu ko benn mbër mës def boobee it ca Demba Diop la woon mu classé ko fa mu classé Modou Lo le 22 avril 2012 combat royal ba digganteem ak Yaxya Diop Yékini foofee la fa journal ba xamle mooy le 22 avril boobee la Balla Gaye 2 libéré le peuple de la lutte rax ca dolli ne la date du 22 avril restera avril li moo waral journal bi xëy def taxaw seetlu bu yaatu ci moom keneen ka war a def taxaw seetlu ci moom mooy Tapha Tine le di Bawol moom borom reefaan fi ñuy classé Balla Gaye 2 Gris Bordeaux Modou Lô Eumeu Sène foofee la koy classé fi ñuy classé Lac de Guiers 2 Bombardier Yaxya Joob Yékini Tyson foofee la ñu koy classé waaye ba mu jëflanteeg Ama Baldé la ko Ama wàcce ba mu gën suufe bi lee yàq na lu bari ci elam digganteem

combat bu xëy joxe xalaatam si j'étais à place d'Aline Sarr j'aurais quitté ko ko mooy Ibrahima Ndiaye Obali bu ma nekkoon ci place président Aline Sarr damay bàyyi lamb ji xooli leneen def na ay preuve ci lamb ji loolee kenn dootu ko nattable am na fi mu jële lamb am na fu mu ko yóbbu loolee kenn dootu ko werante waaye dama ne bu ma doon moom damay bàyyi lamb ji xooli leneen bu ñu jàllee ci écurie géejawaay mbooloo seen bilan 2019 leen di fekk ñu écurie cinq combats la ñu am ci saison bi la écurie seen quatre victoire ya gannaaw victoire Jackson Senior ba ca Pape Ndoye gaynde moo daan imposé bu benn barang mbooloo réenu guy daan caporal ficelle bu ficelle gaynde daan baaboy doo bu sàkku xam-xam seen benn defet ba góor bu faan gël tàppe moo daan am zer bu dee seen président ba Pape Fall la mu xamle mooy nous avions rêvé d'un parcours sans faute dañoo bëggoon a def parcours zéro faute def a fës ci été yéenekaay bi ñu leen jox di